Macky Sall def sama biir xol bi dootuma ko ko sa sankal ëmb sa kersa c'est ça la bonne politique mais de fowoon politique moy njaabar njaabar joxe fi 15 millions joxe fi 5 millions ñu l'homme fort l'homme fort nga sol sa garam bubu l'homme fort ay way way l'homme fort l'homme poche l'homme poche l'homme après c'est ça lolu monsieur le président de la république

diko yak dila yakal la yow du meuna a yàq mais dila la yow parce que kawlak dafa manqué intellectuel kawlak dafa manqué leadership kawlak dafa ñu fexé ba jël lool teg ko loxo ñom président lool mo tax mënutuma nalaw avant nga koy def sa diggante ak Diène Farba avant nga may nommé manam euh, suma amé am envie de politique en tant que jeune en ah, gannaaw Diène Farba mais président yow la ma gis li nga def Sénégal tay liguey bu rafet bi nga def Sénégal machallah fa tabarakallah mané infrastructure sur tous les plans vous êtes le meilleur président sénégalais de tous les temps ma gis ko man mais président ba ma gisee loolu ma gis ne amna lo xamné tay buñ ko sétané muy ram ñu ne pat noppi ay naa fekk la ñu bëgguñu la té ñun nak dañ la bëgg dañu bëgg sa sa kanam rafet dañu bëgg sa ginnaaw rafet président dañ ñoo fal

ma lay xamal ne terrain Kaolack ku ko mën a xam mooy ku nekk ci terrain Kaolack ku ne la xam ne ko ku nekku ci terrain bi mi ngi lay nax yow nag yaa ñu booleeg ku tudd Amadou Ba ñu accepté ko parce que waxu kilifa waaw la sant soo ñu booleeg Amadou Ba man xaw ma Amadou Ba man yow laa xam soo ñu booleeg koo ñu boole dañu ànd ak moom maanaam sa décision yow. duñ ci del ginnaw dañuy accepter li nga wax waye nak c'est le président qui choisit mais c'est la base qui vote président yow yaa choisir mais xamal na base bay voter choisir Amadou Ba ça veut pas dire que Amadou Ba a déjà gagné les élections dama ba ñu nax suñu bopp monsieur le président. monsieur le président yaa mën a sauver Kaolack Kaolack mi ngi daanu Kaolack mi ngi rës Si ça continue comme ça on va pas gagner Kaolack man dama lay wax deug parce que man dama la bëgg dëkk dem nga wa nommé dafa ma teranga temps googu du ma ko fàtte moo tax damay daw ngir yow seen bopp nañu élection pare junne waaw fi mu toll nii ah Kaolack na gongo Macky Sall Amadou Ba yow bana la fii nee na gongo am nañ fi mu toll nii cinquante mille day tàccu waay waay l'homme fort l'homme fort boo demee ci urne ñu dóor la ba nga daw parrainage mooy lan mooy lan parrainage bi utal nit ñi nit ñi li ñi nga xam ne ils tellement sincères la base affective est saine une bonne base Nous nga une bonne yow gëm même si personnes quatre personnes franchement c'est la base c'est la base nous avons gagné mais nous avons euh, alors que c'est archi faux c'est faux bu Macky Sall Macky Sall président Macky Sall jiw leen lii président Macky Sall jox leen ay ndama tànk am ngeen ay alal président Macky Sall marché bu ne dajale ngeen ko yéen façon marché bu ne am ngeen ko Kaolack xam nañ lépp te dinañ ci wax ba sa wax nag marché yi am Kaolack ñu koy lebet yow bari di di dundee Kaolack waaye loolu ça suffit dinañ ci wax. Jakarta maani Kaolack tous les Jakarta man sont derrière Ousmane Noël Jakarta man boo leen convoqué di leen jël sa xaalis lekk ko parce que ñoo ko moom. mais billaay wallaay bu dee da nga bëgg demal ba sa bopp ci jakarta nga foog jakarta maan yi ñooy Kaolack waay yaa ngi juum su fekkee ñu nga bëgg convoqué jox leen ne maa leen ko jox waaye nañ lekk waaye loolu taxul mu lu tax ñu gañe mooy da ngay jaar ci yoon bi yoon bi da ngay jaar ci yoon ki nga xam ne jakarta maan yi bëgg nañ ko ki nga xam ne rus nañ ko ki nga xam ne yàgg nañ defal teraanga ñu bëgg ko seen bopp xoolal kan moo kan moo ñu la def fi ñu toll nii génn benn leader rek moo ñu la génn biir Kaolack di dox ci marché bi te kenn waxu ko Sonko Sonko on se dit la gis nga ñi wax Sonko Sonko àndul ak Ousmane Sonko de non non mais pour rek wane seen mer tey jii su ma su ma su ma dem xas sama noonu bëggu mer wut sama wut jëm wut jëm laay mi tey Bamba su ma bëggoon lu ko merloo rek ah, wax dëgg yàlla damay xool gëlëm ba mu bàyyi te bëgg ko loolu te wax dëgg yàlla te ba léegi ba léegi nga ko bëgg ma tudd ko Bamba mer mais ñi tudd Ousmane Sonko kaw la kaw la waaye benn leader lañu am. nous Ousmane Ousmane mais ñu tudd euh, Sonko Sonko parce que daf leen bu leen bëggoon a kontaanuñ tax ku benn leader mooy dox imagine meeting bi mu mujjee def maa ngi jógee ñaata ñaata ñaata fan laa jógee di dox ci mbedd mi. ñëpp di de di tàcc Ousmane Noël nga ne yéen doo leen gis loolu may mobiliser ci en une fraction de seconde de bi des nga ne yéen doo de gis loolu fu ma top mu fees nit ñi bëgg mo nga ne yéen doo gis loolu nga la di len bop di len suñu bop barki alxuraan bu ñu demalee suñu bopp encore te on leader ñu juboo ñu doon benn Kaolack du baax te président Macky Sall man dama la fonk président Macky Sall man dama la bëgg Amadou Ba nga fi teg bés ni ki tey ba nga ko tegee ñu ne dañ ko fonk ndaxte yow sa mbuus sax fonk nañ ko que may wax nag Amadou Ba na nga oot ñëpp loo bëggee gañe Kaolack on leader yi ñun Kaolack kenn duñu boole ak yow Kaolack ñun duñu ànd ak kenn nekk ci ginnaaw kenn nekk ci yow ñun rek ñun kese ak yow wala ou bien ñun rek ñun kese u yow te ولا أوري رك نخول لنا لني دف ولا نخول لنا لني دف بس كتبت تبد تبد تبد من من أبدا نسمي رك نون يفو أبران أي رسمته نجوم نجوم لا دين لا خالص لا دين لا أو فرا سوكم نكون نكون جيني لا خالص أمي نلا مليار أمي نلا سين سين مليون خم نكو أمي نيو دي لا نان مم أفوزان أمي أفوزان يكون خم نان باخ باخ باخ دي غراو غراو في دي جن دي خس مكسان دمن تيموم دي لا مليار pour vous nous nous sommes on est très digne Nous sommes on est des patriotes de Sénégal gëm sommes président Macky Sall fi te bu fi Sénégal suñu lay dañ sans raison sans rien on n'a rien au retour on est digne de ñu jox ñu cër respecté ñu waaye duñ ñëw rek simmi suñu yëre yëbbatiku ne Amadou Ba gongo ñu ngi ànd ak yow loolu duñ ko def ba jamais au plus grand jamais parce que dañoo am base on a une base affective et saine soo ñu soxlaa xam nga fu ñuy fekk